Italië, je deel xew-xew bu neex bii xayoo dikk na ak xéewal yu amul fenn Rayo moi quatrième opérateur de téléphonie fixe du Sénégal basé au Tiamatam, Matam ñu taxawal depuis 2015 service Rayo yi mën nga ko am fait pour dem ci petit foo nekk mën nga wut abonnement surtout y ni ni yi fête Italie so bëggee xéwalu ci bànneexu Rayo da ngay joxe sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga di am ci application Rayo avec numéro téléphone bu bees Star li ci gëna neex mooy ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa Xayo dinañu def promotion 100 ou le wala 200 pour ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da nga bëgg liggéey ak Xayo nag te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te neex mën Joko Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 yow dawal ka abonnement Hayo ngir السلام علeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk yi ànd ak ñoon ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ko baaxoo di jiite ci nuyoo bi ak ziyaara bi ki fi toog toogaayu ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di Sëriñ Tuubaa gépp di nuyoo ak ziyaara sëriñ Bassirou Anta Niang Mbacké mi toog toogaayu borom Daarul Mooti nuy ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko lool ak njabootu borom Daarul Mooti gépp mu njaboot gi nekk ci biir dëkk bi ak njaboot gi génniku dellu di leen ziyaara sëriñ du Makhtar moom sëriñ Cheikh Awa mi wàcc ab liggéey di ñaan yal na ko sunu borom xare aljanna yal na dëkkaale ak maamam yu teddeya di nuyu ak ziyaara Sëriñ Basiru Mbàkke Mooti di Sëriñ Abbas Mbàkke kon ñoo ngi nuyu ak ziyaara Sëriñ Basiru Anta moom Serigne Abbas toog ab jataayam mook njaboot gi yëpp njaboot gu góor gi ak gu jigéen ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mbokk yi ñu ko àndee ak yéen diirub bi weeru Shahban wii di weeru borom Daarul Muxti teru ñu doore woon ko ci sëñ Modou Awa la tey ñuy waxtaane ñeenteelu xalifa borom daarul mooti bi nu dëddu ci weeru décembre wi nu génn fas yéene jéem a xamle rek jëmm jooju doon Serigne Abbas Mbakke Serigne Abbas soxna Kumba Fall mooy waajuram mu jigéen borom daarul Muxti mooy waajuram mu góor moom nag mu ngi gane jamono diggante mille neuf cent vingt cinq mooy mille neuf cent vingt cinq bi muy làqu amoon na juróom ñeent fukki at ak juróom benn di loo xamante ni bii ak jagle la gu ko sunu borom defal ndax at yooyu menn moom moo ko fi am ci njabootu borom Daarul Muxti mbokkam Cheikh Abdul Xuddus amoon na juróom-ñeent fukk ak juróom motax biñu bi ñu jàppee ni bi ñu ni 1926 la feeñ dañ ñoo ñoom ñaar ñoo tolloo ay at mom Serigne Abbas nak ñu ma waxe rek fi ñu jaarale doomi soxna yëpp fa lañ ko jaarale ci am njàng jàng na fii ci sëñ Socé Ndiaye joge na fi itam dem Daaru Jóob gog sëriñ Masamba Jóob Saam mook mbokkam am Amsatu Mbakke moom sëriñ Abbas moo ma nettalil boppam ni demuk borom darul morti ba mu ko yëg ci yaramam booba mu ngi daaru jóob gannaaw ba mu jàngee alquran ba noppi dem na koso ñu ma ko waxee woon dem bi ñu waxtaane sëñ mahmadan foofe la jànge xam-xam mahmadan moo ko jàngal ba mu jàng li ñu war a jàng lépp mu dellusi si Darou Moukhty mu ñëwee nekk ak ay magam Cheikh Mamadou ak magam yi fi nekkoon yépp yàlla dogal muy jëmm joo xamante ni bii li mu doon ci borom daaru muuti nuru ko ko mooy mbéy waaye sunu borom dogal itam mu doonoon jëmm joo xamante ni bëggul ku ko yóbbaale ci dara moom daa bëggoon saa bu amee soxlaam rek faj ko te kenn du ko yëg bi mu fi bàyyi ko ñu def ay seede ci moom yëpp nañu ni jàmbaar la woon joj daa bëggoon di liggéey na waajuram borom daarul mooti bo saa bu amee soxla du ko diis kenn daana wax ni yàlla bind la jox la kattan wérediwoo nga am soxla di ko diis kenn loolu kenn ku nekk war na koo jomb ni nga xamante ni bii yàlla bind la jox la wërsëg jox la wér nga wàññee ko di ko moy te tegoo ko fudul ci sa bakkan loolu warees na koo jomb waaye li ngay gën a jàpp ci moom daal mooy jëmm la jooj ba mu jógee rek dafa sabablu maanaam da doon sabablu ngir saa bu amee soxla fajal ko boppam wax naa leen ni ko doonoon borom Daaru Muxti la ci mbay ku bëggoon ay bokkam la ndax kër Sëñ bas soo fa demee tey di nga fekk ci ak njabootam sëñ Modou Awa Balla mi njëkk a wuutu borom darul mooti di nga fa fekk Cheikh Abdul Khoudous Mbacké di nga fa fekk Sëriñ Amsatu Mbacké da nga fa fekk kii toog ab jataayam mu tudde ko Sëriñ Basiru da nga fa fekk Sëriñ Habib mom borom darul mu'ti da nga fa fek sëriñ Ousmane da nga fa fek sëriñ Ndam Fati waaye njabootu sëriñ Touba gi tam da nga fa fek sëriñ Fallu da nga fa fek sëriñ Saliou da nga fa fek ku teddi ki khadim rasoul Cheikh Ahmadou Bamba da nga fa fek itam borom darul mu'ti da nga fa fek itam serigne Abdou Jamil magam manam dafa bëggoon ay bokkam ñi mu bokkal borom daarul mooti soxna Mampenda njabootu borom daaru mooti gu jigéen giitam itam tudde leen ci ak njabootam ak njabootu Serigne Touba jigéen gi soo demee da nga fa fekk soxna may mënatu soxra kon jëmm a ngi noonu ju bëggoon ay bokkam jëmm joo xamante ni bii liggéey ak jaamu yàlla la boole woon fii la daan bee kër Aliou Ndiaye cëski gannaaw bi Cameroun fa Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ay daaraam nekkoon fa jëlee naa ci sëñ Cheikh Asou mu ni sëñ Abbas bi mu yóbboo ay dongoom Cameroun def leen a beral noonu njël di joxe njël soxna Fat Ñang di leen ko toggal sëñ Jaas Fay nee na moom booba benn taalibi la am nee na ma jóge fa ñëw ci sëñ Abdou Khoudous mu laaj ma ni ma ana Abbas ma ni ko ma nga mu ma nu mu ko moom day dongom ya fa nekk def leen beral njël ñu di leen toggal sëñ Abdou Khoudous laaj ko njël la nu mu toll mu wax ko ko mu ni ko boo demee neel sama jëwriñ joojee na nat andaar yu toll ni njëlul abbas bu mu joxeeti njël sëñ Cheikh Fay nee na bi mu ñëwee wax ko sëñ abbas nee na dafa ree ni ma Cheikh mbaadu yaa ko ko wax nee na ko déedéet man dafa ma laaj rek ma wax ko li fi nekk foofee fa la doon béy ba ci atum 1988 mu daal di dem région tund yu ñax oriental fëli ci Koupantoum ci ab kóllëreem bu fa nekk ñu di wax sëñ amet Seck bëgg a béy ndax suufu Saloum danañu teel a sëblu te suuf su bari doole la mu daldi fay dem toglu fa pël bu ñuy wax jaawoo boy de moo ko dogal at ma ñu fa njëkk nawet mi 1989 at moomee ba ñuy ji gerte ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fekki ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ci déwén sa 90 booy de moom itam dogalaat ko mu bay fa ba ci 91 nag la sàkku ca communauté rural ba commission damay ñaal ba jox ko aw lew lew bañ ko ko joxee euh, fa ñu wax maritu nga xamante ni ba ko goree daaru salaam sëgiñ la ko tuddee sëgiñ mooy déeg boo xamante ni bii déeg bu mag la mu nekkoon ci wetu daara ja ba ñu ko joxee suuf sa fekk na booba nawet a ngi jige si sëñ Moustapha Mbacké ñoom dañ ko ni woon walla sëñ Ahmed Seck sëñ Moustapha sax sëñ Moustapha moo ko ni woon tee nga béy ci sama lew wi ndax fii day gaaw a sébbi donga yi bala ñu fee gor àll bi ba di ko ruuj léegi dangaa war a ji rek ci sama lew wi bu nawet bi jàllee ñu doog a gor sëriñ bi ni donga yi dem leen rek gori na la ñu def leen daal di dajale ñaanal leen gor nañu lu leen doye bay déj ji ëkk ya ruuj ko te bët see biwut nga xam ne sëñ mus euh, sëñ Amet Sekk ba mu demee wëri gor ba def ni mbàkke mbàkke di ndekete lu mu bëgg rek am ko nun de jàppoon nañ ni lii du fi xaj bala ñu ko noppi bët sëbbi kon 1991 la tàmbalee béy foofe nga xamante ni juróomi bërigoy kemb moo doon jiw wa ñett ya moom ñaar ya mu jox ko jëwriñ ya ñu jël ko seen bopp muy gàllaay faal mi nga xamante ni bii daara ja digganteem ak Daaru Muti ëpp na ñetti téeméeri kilomètre waaye sàkku lu lew loolu bu amee soxlaam faj ko te kenn du ko yëg loolee taxoon na mu bay suuf si daal di dem Saalum waaye loolu lam ko jural mooy e, mbay mi mu fa mujj a béy jiw wa wuute fa njëkk a ji ndax at mu mujj mi dañoo wàññi jiwu waaye demoon na ba egg ci ñeent fukki barigo kon foofee la nekk te ba mu fay dem mu metti lool nga xam ni dongo yi rabi àll ya fa nekkoon bukki yeeg yooyu nee na ñu am na genn bépp gu mag ngu fa daanu woon ba wow dañoo taaloon béb ga ngir ndek ment yooyu mel ni bukki yaag ngara yaag yooyu bu ñu séenee jénéer bi daw ñaari peeri nag yow ca ndort la moom lañu daan liggéey mbaam ma ñu di ko takk saret waaye nee nañ dañ daan tëdd ba guddi bu ñu déggee nag yi di tuur ndox bu ñu génnee bu ñu niitee bukki yi daw nga xam ni dañ daan ñëw ba ci ëtt bi waaye ñaan googee leen sëñ Abbas ñaanaloon tax na aw rab musu fa lor kenn am na at moom dafa bàyyi ko ci toom Abdou Khader xam nga maamama waajuram ma waaye maama ndax soxna ma astu la soxna busu sa mbàkkee borom daaru muuti mooy waajuram kon magi sëñ Abbas ju jigéen mooy waajuru soxna ma astu la mi waajuru Serigne Cheikh Serigne Cheikh di ko maame naan ko ah ndekete kon man ngaa dem tool ba nëgë kon yaa ngi dem tool sëñ Abbas ni ko waaw waaw maa ngi dem tool de ndax bañ bañ a am soxla kenn di ko yëg rek moo tax may dem tool kon ab béykat bu mag la woon loolee di lu mu ci boroom Daarul Muhti doonoon jëmm ju sell ndax wax na ni ñaan sunu borom mayoon na ko ci loo xamante ni am na at mu mu dem Zaïre dëkk bu ñuy wax Kinshasa nee na am na ku fa ñëwoon doon sàkku ci moom ngir mu ñaanal ko ni ko lii may sàkku boo ma ko defalee dinaa la jox ay milliards suñu Abbas nee na la ma doon sant man naa ko waaye xaalis balaa cheikh lam ko doon jëfloo sëñ bi waxu ko waaye xam naa du lu dagan ndax nee na xaalis ba ak lam doon jëfloo lam ma doon jëfloo mën naa ko waaye xaalis balaa euh, euh, seexlu ba defuma ko nee na ñaan li ko ci sunu borom mayoon da cee dem ba xam ni lii ku ko topp mën naa yàq sa tawhid nee na mu mel ni dañ ko ko tere ndax way ndareem da ko daan def ci walis buy tukki waaye da koo fàtte ci ab avion nee na ba ma ko fàttee ci avion ba itam nag lu ci bari mi ngi woon ci sama dënn bii waaye nee na réer googee walis wa réer da caa gis ni dañ ko ko tere moom moo tax mu bàyyi ko ndax demoon na ba egg ci foofu nee na lu mu ci bëgg a def man na ko cee def te foofa boo fa eggee boo moytuwul rek mën naa yàqu sa euh, tawxid kon jëmm a ngi noonu joo xamante ni bii njàmbaaru borom daaru muxti ga ak mën liggéey ga doon noon na ko ci wayjuram doonoon jëmm ju lewet doonoon itam nag borom baati ndax sëriñ Mbàkkeem sëriñ Moustapha May di sama sëriñ dafa jaxasoo woon ak sëñ Abbas lu jiitu muy doon borom Daarul Muxti lu bari mu daak ko doxlo waaye nee na mbas mi fi am muy Covid bi ay weer lu jiitu muy ñëw nee na maamam sëñ Abbas daf ko ni man de sëriñ nelawatuma guddi daanaka ñeenti waxtu lay jóg jël sama kurus dootuma mën a nelaw ndax damaa gis lu jóg jëm si ci mbindeef yi moo mënatuma nelaw fu ma di ñaan sunu borom ngir mu musal ci sëñ Mbàkke nee na teguñu ca mu lu yàgg rek mbas mi feeñ jëmm la woon joo xam ne sëñ Mbàkke nee na tawat na mu yóbbu ko fi hôpital sëriñ bi xamal ko ni ko sa yaari maam yi day muy sëriñ Touba ak borom Daarul Mooti fekk nañ ma fii ci sama lal bi kon jëmm la woon joo xamante ni sunu borom daf ko xamaloon adduna ba mu peeg ko lool sëriñ ay dara moom sëñ Dame Faty nee na bi mu toogee di borom daarul mooti ndax moom toolam yooyee nekk ca kuppantum kere biñ koy woo sëñ Abdou Mbàkkeem sëñ Cheikh xaddi ni ko solal sa mbubb rek te ñëw yow lañuy xaar fekk na booba Baye Cheikh Khady wàcc na ab liggéey mu war a ñëw moom dëkk bi yilif ko ba mu bàyyi ko ca tool ya bi mu egsee këram ba ñu defaral ko néeg bi njabootam ga fa nekkoon nee nañu sëñ Abbas dafa wax ni man de maa ngi sant yàlla dëkk boo xamante ni fa nga ganee jamono adduna di dox di dox ba ñu ni la tey yaay yilif dëkk bi te musoo faa jëf lu naqari sunu borom loolu doy naa sam sant yàlla dal di ni njabootam gii nag li dox ba dugg ci kër gi muy xilaafa gi dafay jaar rekk waaye day jàll kon nag ngalawaay bu leen ko defuk moomeel bu leen ci leble mukk bu leen ci fayu mukk ndax mbir la moo xamante ni ñi mu fi duggee noonu la fay génnee ëllëg dugg feneen kon nag bu leen ci leble bu leen ci fayu doonoon jëmm joo xamante ni lu waay ma sa am rek sëñ Abbas na la ko ñi ngi nettali ni am na jëmm jooj sëñ Abbas da ko warlu loon café ak suukar këram nga xam ne bis bu set mu jox ko ñaari téeméer jëmu yi dafa am bis ba mu ñëwee sëñ Abbas jox ko ñaari téeméer yi mu ni sëñ Abbas yàlla na nga doon xalifa borom Daaru Muhti yàlla na nga moom dëkk bi jàpp na ni loolu bu ko waxee sëñ Abbas dana ko neex waaye loole def sëñ Abbas aw tàngoor ba mu demee mu ni dangay ngay rek sama mag yi nekk fi yilif dëkk bi te ma yéene ko ko lool kii moom di ma ñaanal loolu nga xamante ni daf ko caa mere ba loolee mu ko daan jox da koo dakkal kon moom jëmm woon joj lu sunu borom jox nit rek sëñ Abbas daf la koy yéene moom demoon na bay sant yàlla ku ko ñaanal ni ko yàlla na nga gudd fan mun la man gudd naaw fan di ndax ñi ma bokkal borom daaru mooti at yi ma am amuñu ko kon man ku gudd aw fan laa ak njabootam itam yaron na leen ba sàkku xam-xam jotee ci ñoom sonn na ci lool ngir ñu am xam-xam Dari sëñ Maxtaar Sidi Lo fa ak njabootam daan jànge waaye njabootu sëñ Maxtaar Sidi nee nañu jàppale mu daan sëñ Maxtaar Sidi ci daar ci daara ji nga xamante ni bi mu nelawee am na ko fuuta la jóge ba ñëw daarul mooti nee na ma li tax ma def loolu mooy ba nu nekkee ca daara yi sëñ Maxtaar Sidi ndaru sëñ Abbas la mu fa daan indi ci xéewal saa bu xéewali masa ñëw noo ko njabootam noo cay bokk yam njabootu sëñ Maxtaar Sidi nee nañu màggalug Touba añ yi daan bàyyi ko di ñëw dañoo demoon ba dëkk yi wër foofu yépp dañu ko daan xaar nga xamante ni bu ñëwaa nee na dañuy takk saret tibbaate nee na am na ci at moom bi mu ñëwee ci pël gi dama fekk ñu ni nee bis boobu du ñu togg nee na ñu ni ko nun ko danoo jaaxle ndax danoo dem ba defe ni woon sax añ yi da ñëw ren lal yeeg ñu daan tëdd moo ko daan saytu njabootu sëñ Matar Sy nee nañu saa bu ma saa ñëw ci daara ji ngir indi lu mu jàppalee sëñ Matar Sy day tànn waxtu woo bu ñëwee naan kafe sax du ko fa war yoor yoor lay doon walla diggante timis ak takkusaan te bu ñëwee timis du ko fa fekk du fa ñëw waxtoo dañ naan nañu jàppi ganaar dañ ko toggal lii wala nañ ko defal nangam ku daan jàppale sëñ Maxtaar Siidi xaritam boobu nga xamante ni dañoo yàgg lool lool lool lool doon na doy sëkk rek seede si nga xamante ni bii magam sëriñ Cheikh Xaddi Mbakke def na ko ci sëriñ Abbas ña ko jege woon nee nañu sëñ Cheikh Khady de daf daan wax ni nangam Abbas ko fi wax de doo ko dégg mukk sëñ Abbas dafa noppi woon sëñ ay derewoon sëñ daam nee na ñëw naa ci moom ñuy waxtaan ma ko yow di sëñ bi nit ñi nee nañu danga war di wax te waxoo danga noppi dégg ga mu dégg àddina mu ni sëñ ay dara maa ngi wax de wax dafa am ak waxtaan man nag damay wax waaye duma waxtaan nee na wax mooy bu farata jotee nga wax ko bu jeexee nga noppi waaye nee na mel ni ku nekk ci ab garam place nag foo toll di wax nee na loolu moom waxtaan la te man Abbas duma waxtaan kon ku gàttoon aw làmmiñ la te wax lim mën a yàq dafa bari ab taalibe la woon boo xamante ni bii duy sëñ moo daw balla nekkee moom la doon xoole borom daarul mooti sëñ Modou Habib di magam te mage ko lu baree baree bari waaye daf ko bàyyi woon xel am fu mu ko tegoon sëñ mu Habib daawul sukk ci ndab mukk te wooyiwu ñu sëriñ Abbas musta sukk te bokkul ak rakkam jooju amoon fu mu ko teg lool lool lool lool lool lool may nettali nii sëñ Abbas nee na ko sëñ Modou Habib bi mu tawatee Cheikh Abdoul Khoudous rakkam dafa ñëw bëgg ko yóbbu ci docteur yi ndax yërëm ko ci tawat ji xamal ko ni ko dama lay bëgg yóbbu ci docteur yi mu nungul ko ko nee bañ jàpp bis bi sëñ Abbas bi ma Mara bi de ñëw na fi tawat ji dama bëgg yóbbu ci yi waaye man de sama yaram wii ak li ci Sëriñ Tuuba def laal ko duma dem di ko joxi docteur bi ma ko waxee nag nee naa ko waaw ba jàpp na nañu bis waaye bis boobee nu jàpp balaa egsi dinaa xam ni may def bis booba mu daata del si ci wàcc ab liggéey bisub Tabaski doon juróomi fan ci weeru juin mille neuf kon ba mu fi bàyyi ko ak léegi moom sëñ moo dem juróom benn fukki at la ak benn waaye ku nawoon sëriñ Abbas la daan diisoo ak moom gannaaw sëñ mu daaw Balla itam Cheikh Abdul Xuddus toog mu jël ko def ko borom daarul moot gannaaw Cheikh Abdul Xuddus itam magam ji mu wuutu di Serigne Cheikh Khady bi mu toogee da koo jël def ko muy borom daarul moot fu Serigne Cheikh war a teew te teewu fa yebal ko fa alxaaji baara mi njëkk a doon xalifab sëriñ Tuuba ci sët yi ndéqi la mu sasoon darul mooti ca Tuuba Bogo sëriñ Abbas moom la sëriñ Cheikh Xaddi yabal moo jiite woon liggéey bi sëriñ Cheikh Xaddi toogee itam te bëgg a yokk jumaay daarul mooti ji ak tabax kër borom daaru kere ba ñuy teg xeer wa Sëriñ Abbas li jox ndigal ñeenti fan ci weeru mars 2004 moo teg xeeru yokk jumaay Daarul ci ak kër borom Daarul Moxti kon euh, ku fonkoon ay magam la daan jëfandikoo seeni ndigal ba ni mu toog doon boroom daal Muhti moom daal sunu boroom dogal na deux mille cinq juróomi fan safurla juróomi fan ci weeru janvier deux mille seize la toog di borom daarul mooti ba ci juróom ba ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre deux mille vingt muy juróomi at waaye magam yi tedd ya doonoon xalifay borom daarul mooti di sëñ mu daaw balla cheikh abdul xuddus Serigne Cheikh Khady Mbacké kenn ku ci nekk ci ñoom sa jëf ci pàkk bii nga xamante ni seen waajur moo ko sañcoon def fi fanweeri at ak juróom doo ko ñibbi àjjana soo demee ci marché Cheikh Mamadou ba Balla maa ngay wax ni Euh, fanweeri at ak benn moo di limb la am fa daaru moo du yanu yan ba maa ngi wax fanweeri ak juróom damaa juum fanweeri at ak benn moom la borom daaru muuti def ci sancam bi sëriñ ma rew bal la wóotu ko taxaw ci dëkk bi jële fi ñàkk ndox ga defar dëkk bi ba bi mu fiy jógee 1982 lu dëkk di teew rek Daaru Muxti am na ko Cheikh Abdoul Khoudous wuutu ko xam ni jamono day dox la mu jamonoon muy courant forage yeeg téléphone yeeg tëli yi mu indi ko sëriñ Cheikh Khady wuutu Cheikh Abdoul Khoudous mbërki démboo bi may waxtaan ci moom moom li mu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët Serigne baas juróomi at yi fi def moom itam fii marché bi nekkoon moo ko miire tabax fa kër borom daarul moot kon ñoom xalifa yi borom daarul muxti yooyu yëpp kenn ku ci nekk bàyyi nga fi euh, sa jëf kon mom ji Serigne Abbas Atami atam yooyu Modern, gépp Boromdal Motiji liggéeyal boroom daal mooti ji pakkam bi sëñ Bassirou Abdou Khoudoss mi ngay nettali li ñu fi dajale ci ay dem Touba ci ba nee dafa daf ma woo ñëw mu ni ko nañu dajale li fi nekk yóbbu ko sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss ni ko moom de buñ ci amoon ndigal yëgle nañ ko ba ñu ngi dajale te ñoo nekk bo lépp daje rek ñu yóbbu ko nee na sëriñ Abbas ni ko ah man ndax dana ko fekke nga xamante ni bii moom demam gi bettu ko ndax dañuy wax naan nit ki day daw faatu topp ca di ko dàq waaye sëñ Abbas moom euh, faatu day ñëw mu jóg dem daje ji ak moom da ko bàyyi woon xel lool bokkul woon ci ñi nga xamante ni bii dañ ko daan daw kon jëmm ju sell la woon jël jëmm ju noppi la woon itam nag te am fayda saa bu fayda euh, wax fayda jotee mu wax ko su jàllee mu noppi mooy loolu mu wax nii دنا وخواي دمدول وقتات مو أم لول في ماي جيخة لرك داف كو تون نبرم دار الموتي بمو فيس لول وانا دي نبرم دار الموتي بمو يجوغي مباكي كيور نيو دي سانيك دكي بي داف نون بغو دار الموتي نيه بين دك ود اي اوديم اندالي ناخ بغول نيت جوغي فينا دمي اولو جي فن ود اي لاو بهم اندالي bëggul nit jóge fi jamono yooju tuq ak kuur dañ ko daan yettalu indi ay tëggam yu koy tëggal di foor yi tamee lépp lu ñu doon yittewoo da koo indaale woon ndax bëggul woon kenn jóge fi naan damay defe lu ji dafa bëgg lu dëkk di am rek daaru moo ci am ko kër boppam gi tam kenn musta génn di wuti xorom lépp ngi fi Sëriñ Abbas bi itam noonu la defoon tàmbalee ko ci mat mi soxna yi toggee Saalum la ko oto yi daan jële di ko indi diw gi barigoom ñaar téeméeri litre la wutoon samp ja pomp bopp soxna yi képp koo xam ne yaa wara a saytoo euh, xéewal yi dangay ñëw natt rek saakuy suukar yi saakuy euh, xorom yi euh, pepp yi sëb yi gerte gi lépp loo xamante ni bii lu ñuy yittewoo ci cin rek sëñ Abbas daf ko waajaloon ba kenn musta génne kër sëñ Abbas naan maa ngi dem ci bitig ba ngir dem jëndi ba ci laalo mooy ay jën waaye ndawal sax gàtt yi na borom daaru mu si daan def nga xamante ni gàtt yi lañuy joxe di ko def ndawal Sëriñ Abbas noonu moom la doon def kon euh, jëmm la woon joo xamante ni la mu nuru woon borom daarul moxti bari na waaye juróom-benn juróom-ñeent fukki atam yooyu ak juróom-benn day defu fi lu naqari sunu borom jaamu yàlla ak liggéey la fi nekkee ba fekke mu fekkee way juróom ak magam ya bëyti kon noo ñaan Sëriñ Abbas Mbakke yàlla na ko sunu borom fayal mbokk yi kon euh, mel na ni tey jii kat dama xaabaabal euh, kon dañu leen di jox dox daje suba incha rabbi sëriñ Ousmane Mbacké Sonoreyni moom la ñu fas yéene waxtaane ëllëg kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax rek ngeen abonné ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen man ko dal di jot noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen dox dox la ji suba insha allah bi ñu fas yéene waxtaanee Sidna Ousmane Mbacké waa Italie yëg ngeen xew-xew bu neex bi xayo dikk na ak xéewal yu amul fenn xayo mooy quatrième opérateur de téléphonie fii ci Sénégal basé wu ca Matam ñu taxawal ko depuis 2015 service xayo yi mën nga ko am fépp foo dem ci àdduna fou nek mën nga wut abonnement surtout si ñi mbokk yi Italie soo bëggee xéwalu ci bànneexu xayu da ngay joxe sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga daal di am ci application xayu ak numéro téléphone bu bees dàq li ci gën neex mooy ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am ba 40 minutes de communication

mën Joko ak Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 yoomi mii dawal sa abonnement Hayo ngir Radha. Radha.